soo ko ne jàkk dellu ci yàlla bu imaam waxee nga dellu ci yàlla bu imaam jëfee nga yëg ca laahu wilaayatum lu hiimi la ku mu mosa xool roose la xaal fakku sa xel mi dellu ci baay mbooti baay la roy leen imaam dañ koo gërëm ku sàmm la boo donnee ku mat foo mën a dem feeñal fa mat de mooy li imaam asan de seddu na fu fanaan ñépp dox ci njub turam mi mbóot la xasan lu rafet lii moo waral muy feeñal taar siise ki siisut kuy bëgg naan ci mbóoti Cheikh Ahmad Tidiane buñ ne imaam nga fàtte sa bos xel yëpp dem ci imaam Hassan imaam yi imaam yee di Hassan fu mos a dem de doon fa njiit baaye waxoon ne danaa fi jóg sëriñ Aline jóg fi mu des imaam asan des ak jumaa ji karaamay bàyyi la wóor na leen mos nañ ko tàgge ñépp jaaxle waay bàyyi ne leen du suñu Hassan lañ ma waxoon du liñ ma yëgal imaam Hassan daa ma desal des ak imam gi bari njëriñ kanu gu mag ci du baay lim fi taxal ci ay deewu daf daan ubbee ci faydu baay Amérique ak Russie Inde ak Pékin ñooñu xam nañu imaam Assane Afrique du Sud ak Gambia jot nañ gënal ci imam Assane internet bi lim ci liggéey kenn du ko ngir ak bari tuubal na tubaab tuubal ku ñuul ay xeeti xeete mosuñ ko gis li lay xamal ne Assane du maas Amérique mi mbëru tey xeex lislaam mu samp fa diine di conférence musuñ ko xatal kii héemi la doomi gaynde de gaynde la gaynde gu jur muus kenn du ko gis ku min ka jur xamoo ragal doo des gannaaw dangay rawe sampi nay daara sampi école dundal lislaam moo di jikkoom sënc na dëkk tabax juma dund ak imam de sankuul clinique bu mag la samp Médine indil ñu rajo Fayda FM ñuy déglu baay ak i sikar yaaramal leen ko mooy li war jóg leen ñu magal jàmbaari baay ku magal xasan magal nga baay yal na yàlla feyal ñu ko ci barke baay ne leen amin ku la jox ndekki bu la diggee añ war nga koo gom duuti nax ku liggéey ci baay bari ngeneel takkaayu leen ñu jëf ci baay toolu baay bi liggéey la laaj du wax ju bari ak i nelew lu fi waay ji moom nga fi góob peeg imam déemé na mosta tukki ngir ab dërëm xanaa ngërëm ci rasulillah soo demee këram foog nga we dem leewal jaam yee doon biram mosta tukki ngir ab dërëm xanaa ngërëm ci rasulillah soo demee këram foog nga we dem leewal laa barakallahu fiik wa zaadaka tawfiqan kon mbokk yi duñu guddal dañuy jox sëriñ bi rek incha allah mu joxe ay kàddoom su ko defee ñu door a dugg ci conférence bi incha allah bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله ala istixqaaqihi alhamdu minna alhamdulillahi kullu ma tacaaqaba almalawaan alhamdulillahi ala an arshadana ila xamdihi alhamdulillahi ma iqraarina bilcajzi an alhamdi walcajzu an alhamdi aynu alhamdi alhamdulillahi walmimu zaidatun wal abdu lillahi wal baau zaidatun fal abdu wal xaddu lillahi alhamdulillahi ala tawaaturatin ala tawaaturi nicamihi alayna la min baabi xasriha lakin min baabi taxaddusi bi nicmatillahi wa in tauddu nicmatallahi la taxsuha fa amma bi nicmati rabbika fa xaddis falhamdulillahi alhamdulillahi xata yarda wa ida radiya fa lahu alhamd alhamdulilahi wa naxnu aajizuna an adaai alxaqi alhamd wasalaatu wasalaamu ala ashrafi xalqihi almabuuthi rahmatan lilaalamin awalu wujudin wa sababu fi kulli mawjidin aynu acyaani xalqihi muhammadun rasulun nabiyun wa aadamu bayna almaai wa tiini wa ala alihi wa ashaabihi wa ala taabiciina wa taabicihim bi ixsaanin ila yowmi ddin wa radia allahu an alxatmi alkatmi albarzaxi mawlaana abil abbaas cheikh Ahmed Tijaani wa ardaahu anna wa an jamii xulafaa'ihi ila yowmi ddin wa radiyallahu an quuti abdaanina wa shifaai quluubina wa giyaasi arwaaxina muntaha matlabina gaayata raxbatina madadina wa mumidduna bahjatul absaari man laa saaxila lahu mawlaana abi isxaaq cheikh alxaaji ibrahim binu cheikh alxaaji abdallahi attijaani alimma ala bahri almuhiiti wa tatruka sawaaqiyan laa tëjdi damaan liman shaka wa ardaahu anna wa an jamii xulafaai ila yowm ddin aljamcu alkarim ixwati wa axusu bidikri axi wa xabibi wa sadiqi salilul ulamaai alaalim cheikh ibrahim samiyu jëddihi binu cheikh mohamad nuruddin binu cheikh ibrahim radiallahu anhum jamian salaam min kulli salaamin ashha wa ahla wa adaam jarat bihi al aqlaamu aw nataqat bihi al alsinatu تعم رحاب هذا الجمع وإني بريد السلام إليكم من الحضرة الإبراهيمية التي نحن نفتخر كلنا بالانتساب إليه فالحمد لله على أن من علينا بأن نجتمع هنا اليوم واجتماعنا اليوم هنا laysa illa tasdiqan barizan li mahabbatina li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hada irfun min mawlana cheikh ibrahima radiallahu anhu alhamdulilah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi am mbégte lu amul dayoo teew fii ak yéen ci jotaay bi sama mbokk sama xarit sama am di jàmm sama wóllëre sama mbokk ci zaahir ci baatin ooma ci ma am ci mbégte lool ci teew ndax lenn rekk lay firndeel mooy lan inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala athaarihim fekk nañ bàyyi yi nekk ci tool bi di bay suñ àggut ca kàttan gañ doon bayee ak manoore gañ doon baye it ñu ngi ciy roy te nag mbaax ak yàlla gi nee na walladina amanu wattabiatum duriyatihim bi imanihim alxaq na liñ fekk bàyyeeg maam yi nekk ci ñu roy leen ci doonte fekk nañ suñu roy suñu roy teef googu suñu roy roy googa àggut ca maqaama bàyyi ak maqaama maam yi yàlla mu ne dana ko ci éggal kon ñu ngi ndokkeel suñ bopp di ndokkeel Cheikh Ibrahim ndax lii nii ak fii nii xewal du màgg ba em nii mais nag xewal nag lu màgg-màgg su jàmbi bi waxee alhamdulilahi jëme ko ca rek jox na xewal ga xàqam kon alhamdulilahi taaral nañ jotaay bi def ci lu ne def ci alal oo nit ñi ñu jógee fu ne mu def ci waxtoom ak alalam oo ay mbokkam ak xaritam ak ñoo xam ne dañoo bokk fuñ askanu askan bi ci gëna a wér mooy askani taalu bi ak sëriñ waaye du askani deret ndax askani deret jamono la rekk jamono ji ci des yawma yafirul mar min axihi wa ummihi wa abihi wa saaxibati wa bani ku nekk rek am nga loola doy kër waaye nag ñëw ci àddina am sëriñ ëllëg ci àllaaxira nga ne doo nga ne kii du sa sëriñ gisuñ ko fenn ànd gu nekk nag dana jeex ba mu des ànd ak taalibeeg sëriñ kon nag li ñu war ñun ñiy oote ne ay taalibe lañ ñu jéem roy ci sëriñ yi te jéem a dëggal suñu askan gi fi mu ne nag ñu ngi ci jamono joo xam ne doon ci taalibe dafay bëgg a doon taalibe ci jamono jii dafay bëgg a xewi ñépp a ngi xaccoo ci doon sëriñ te loo doonu taalibeem tey doo doon sëriñam ëllëg te Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu won nañu yoon wi won nañu fi ñu war a jaar jàmbat yi bëri na ñépp a ngi jàmbat jamono ji naan jamono ji jamono dafa jafe jamono mënta jafe ndax ad-dahru huwa Allah yow wér na jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne laa tasubbu dahra inna dahra huwa Allah bu leen ŋàññi jamono ndax jamono mooy yàlla nañ leen seetaat suñ bopp ñun Cheikh Ibrahima daf ñoo garanti lu ne waaye nag daf ñoo tegal ay condition ñun nag ñu jël condition yi renversé ko ba pare nag bëgg lim ñu garantil ñu tekki suñ loxo mënta ne bi mu waxee ajir fuyuudal ilmi def cee ataf wal arzaq suñ itteewoo xam-xam rek àddina bi bopp ñëw ci suñ ko waaye nag ajër fuyuud al ilmi wal arzaqi di maatuuf ñeneen léegi dañuy indi dañuy jiital bee mujjee bee mënta ne nañ leen itteewoo xam-xam suñ bëggee moom àddina bi ilif ko suñ lépp éwén ndaxte Cheikh Ibrahima bi mu waxee ajër fa yudal ilm wal arzaqi ñoom ko ñaanal li zumrat yi ak lu mu ca teg jikko yu rafet wa hadibal axlaaq bismillahi fi ardin wa sama bismillahi alladi la yaduru maa ismihi da bismillahi waxid almannaan bismi alkarimi mun'im arrahman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 والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل عليهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم والصلاة والسلام على مبعث سر الكون من أرسل رحمة للعالمين القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السادة والسيدات المشايخ الأجلاء العلماء الأكابر أئمة الهداة الرساء والدوائر والوفود والروابط ضيوفنا الكرام أحباب مولانا الشيخ إبراهيم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فبإذن فبإذن من خليفة فضيلة الشيخ أحمد تجاني إبراهيم أطال الله بقاء وباسمي أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء الجمعية alwaxdatu litadaama walamal alislaami bi kaaral taxta alshiaar yajmauna mahabatan wa shawqan fi sayidina wa mawla cheikh alislaam wa barakat alanaam alxaaj ibrahim ñas yamlau qalbi faraxan wa sururan wa gibtatan lima wafaqna allahu li iqamati hadi alxafla almawlid annabawi althani min nawciha taxaddusan bi niamati llahi wa shukruhu ala alaihi aljazila kama qaala taala qul bi fadlillahi wa bi rahmati wa bi dalika falyafraxu wa xayru ma yajmaun yaqul rasulu sallallahu alayhi wa sallam ma ajtama qawmun fi beyti min buyuti llah yatluuna kitaab allah wa yatadaarasuuna baynahum illa nazalat alayhim alsakina wa xashiyathum arrahma وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ولا شك أن اجتماعنا هذا ومصاحبة بعضنا بعضا ليس إلا في الله بالله لله حيث يقول الشيخ ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل هكذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدينا من مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم ياس ومن أولاده من بعدهم fa minhum man qadaa naxbahu raximahum allahu raxmatan waasia wa radia allahu anhum wa minhum man yantadir ataala allahu baqaahum wa zaadahum bastatan fi lilmi waljism bi sixatin wa baraka wa ma baddalu tabdilan abi hudaahum aqtadi wala unhi xitaabi haadi illa an uwajjiha alshukr waltaqdir والعرفان لوالدي وسيدي فضيلة الشيخ محمد المكي الذي لا يزال يشجعنا بما يبذله من مجهودات جبارة تجاه دعوة إلى الله وخاصة في باب فيضة التجانية أطال الله بقاءه وحفظه ورعاه كذا أذكر الأخ الشيخ إبراهيم محمد النذير وأسرة النذيرية ذكورا وإناثا الذين يساندونني ويؤازرونني ماديا ومعنويا wa usratu Cheikh Mouhamed Nouruddin wa al-akh al-ustaaz al-muhaadir ustaaz Tamsir Sarr wa kullu man saanada min saahama fi inshaa'i haadhihi al-hafla min qaasin wa daanin fallahu asalu an yusaddida xutaana wa iyaakum wa an yajcala haadha al-amala fi miizaani xasanaatina yawma laa yanfacu maalun wa laa banuun illaa man ata allah bi qalbin salim fa huwa waliyu dalika wa bil ijabati jadir wa kullu aamin wa antum bi xeyr muhibbukum ala dawaam ibrahima mohamad nuruddin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu la المقام المحمود من أرسل رحمة للعالمين من قيل في حقه به نال كل الأنبياء منالهم به زنة الحضارات وقروة عظيمة صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الغر الميامين الإخوة والأخوات fadilatu cheikh Mouhamadul Makki Ibrahim fadilatu cheikh Ibrahim Mouhamad Nadir fadilatu cheikh Ibrahim Mouhamad Nouruddin al ulama al ajilla duyuufu rasul duyuufu rasulillah duyuufuna alkiram asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ci ndigalu sëriñ bi cheikh Mouhamadul Makki di ñaan yàlla yàlla yàggal ko ci kanamu njaboot gi yàlla may ko wér mu yàgg jiite njaboot gi ci ndigalu sëriñ bi ak doomam yi nga xam ni ñoo toog ak moom ci njiital Cheikh Baye Nadir ak Cheikh Baye Nouruddin ak seeni rakk ak ci kalima kàddu waa Kaarang yëpp ñu ngi ànd di la tatagal di la dalal ci jotaay bii di wax ne ñu ngi lay dalal jàmm di la ñaanal yàlla tawfiq di wax rek ne jiitu nañ ci comme niñ ko baaxoo def ci jotaay bi ci suba tey dañoo nekkoon ci conférence boo xam ne oustaz Tamsir Sarr moo ko doon def mawdo bi mi ngi nekkoon ci as soxbatu fillah yàlla def depuis minuit lañ ci nekk mu jàllale kàddu yu rafet jàngale comme ni nga xam ne noonu la ko Maulana Cheikh Ibrahim Niass daan defee yàlla def ñu jël kàddu yi jox ko ñi ñu ko war a jox ci dëkk bi kilifaay dëkk bi yëpp teew nañ la ko commencé ci maire jàll ci chef de quartier yi notable yi ak ñi jógee Kaolack comme ni ko xamee ñoom lii romb na ci sa ndigal ak comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee dañuy wax nag ne su jant bi feeñee biddéew dootul feeñ mooy lan bu sëriñ bi toogee. ci yar ak teggin ñun amuñu kàddu moo tax ñu jiital li ñu jiital yépp pour su ñëwee rek dugg ci liggéey bi kon ñun duñu guddal dañ koy jox micro bi rek xanaa ñu ubbi jotaay bi ak alquranul karim euh, euh, ñu jox su suñu sëriñ euh, Baye Cissé Mouhamad Nadir mu ubbi jotaay bi kon fa lay tafadal mashkuran بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله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 مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسى والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم الفاتحه المرسلين مستودع حيث يخسف الورق ما بت البلاد لا بشر أنت ولا مطقة ولا علق بل نطفة تركب سوين وقد الجمع نسرا له الورق وردتنا على الخليل مكتتما تجول فيها فلست تحترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى علم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من هند الفلاليات تنطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق ونحن في ذاك ضياء وفي ونور سبل رشاد نحترق اللهم إنا نسألك بجاه ممدوح عندك والمعدي أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أخلاقه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 هذه حق من دار متى يبدو في داجي به جبين يلزم سمساحي رجع متوقر ومن كان ومن لا يكون كأحمد نظاما للحق أو نكان محدي غر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان يلو وشر وضم إلى اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمسين موزن وشر وشق له من اسمه ليجل له فذو العرش محمود وهذا محمد تخدي به من قدر الادماء مرتجلا بالبدر كالبدر جلا ليلة الظلم وفي أطافي أو أذنى بدته ما يعلم الله من عين ومن كرم إن رسول لسيف يستضاع به مهند من سيوف الله مسعود وأبيض يصل الغمام بوجهه ثمار اليتامى اسمة للأرامل يلوذ به هلاك من آل هاشم وهم عندهم في نعمة وفاضل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 أي الورى فمناه فليس يرى للقرب والبعد في غير منتعم كشمس تظهر لعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف ينكر في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم ومبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ومبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي مساقت ومن له الحسن فقط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 إن لم أكن منهم فلي بحبهم زنجا بجاهم وبحزبهم طيب لنا شرها واختم لنا بخيرها من لا لنا رب سوى تنيعت ربيعي بمرحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها مؤملي تنيعت ربيعي بمرحتي شفيعي يا ربنا صل على خيلنا ملعلى على السماوات العلى بإذن ربي العليم من العادي شبيب غنك أبدي بها أهلا بشار مولدي شر العلا والسدد شر النبي أحمدي شر الربيع الأولي ربيع بمن حدي شبيب بمن تكي قد خص بي ربيعي إذ كان كان ربيعي للأرض وشفيعي بكل خير معضلي بمن هدي شبيب أهلا بشار الفرح شار ذهاب الترح وفخرنا والمرح شر النبي إلا أفضلي بمرحتي شبيب بمن تقل بني شر الفلاح والسرور شر به ساد الدور موشح بين الشهور متوجن مكلل على المشار الفاتح إغلاق كون الفاتح من خص بالفواتح وحاز خاب من الملل سمعت ربي نعتي شبيه بمن تغلب ولن بشار الحاتم شار النبي القاسم وفاتح وخاتم واخر وهو لي فرحتي شبيعي بمنتقى القديم أقضي بها أهلا بشار الهادي لمن حجر الرشاد وقائد وحادي إلى الطريق المزلي بمرحة شبيعي بمنتقى القديم أقضي بها أهلا بشار سيدي لأحمر وأسودي من حزن سبق سردي يوم ابتداء لرسلي ربيعي بمرحتي شفيع من وقد كفى كلها أبا وكلها بقولي أنا لها إن شداد الوجل برحمة الشفيع بمنتق البديع أرض بها محمد يا لها من حطة جوابه في الحطة من ربي سلطوطا واشفع لدينا المقبلين ربي بمرحة الشفيع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 وشر خير خلقي شر جميع خلقي شر عظيم خلقي في محكم منزل بمنطق قدير يا الذي أثاره إلهه واختاره من حبه خيره عند انقضاء الأجل ربيعي بمحاتي جميل بمنزق القرن أوفر بها محمد شار الذي مساقت ومن له الحسن فقط علي جبريل هبط بكل نور معتلي بمحاتي شفيع اتق الابد اخرها محمد الذي مساقط ومن له الحسن فقط علي جبريل هبط بكل نور معتلي بما عادي شبيب البديع أخذ بها أهلا بليل اثني عشر في ويوم الغر والطب بذلك سحر ونور أفق كبيرة ربي مرحتي شبيعي بمنتقل بديعي بها أهلا بكل ما ظهر من خالق ينفكر في كرافي البصر إلى مقام العلي ربي وعدي شفيع ومارات من عجاب أمينة حين نصب سبابة ثم اقترب بسجدة مبتهلين ربي بمن حاتي شفيع كما تدل الزور كما ترى القصر في وحل الكسر بسلم مجدل فليعت ربي بمرحتي شبيب وغاضت البحار وجفت الانهار من أجله والنار قد طفئت من خجلي فليعت ربي بمرحتي شبيب وجنم في نكدي لرميا برصدي وغلها مقدي ميد خير رسلي بمرحتي شبيب بمرحتي شبيب ورنة شيطاني جرى عظيم الشان من أوضحي براني لعظم ما بيبتلي ربي بمرحتي شفيع بمن دخل قد من ذو الإفضال بأفضل الرجال بأفضل الليالي ببلد المفضل يا ربي بمرحة شفيع بمن تقربت أهلا بيوم العيد ما مثله من عيدي قد حل في المولود في محل الزحل سيرة ربيعي بمرحتي شبيب المتقي بديعي أغلبها معمري وسابع الولادة ومات وسادة من رفق ما أراد إله في الأزل ربيعي بمرحتي شبيب فانتقل أهلا بيوم سمي محمدا خير اسمي هذا لمعنى الاسم من جديد ينجلي من العادي شبيب المتقل بحمد الأولين له والآخرين فكان زائقنا من الكريم المفضل شريعة ربي بفرحته شريف المتقين أهلا بيوم اثنين مولدي ثاني اثنين مبعث سر الكون مقدمي مبجلي بمرحتي شريف بمتقي المدينة أكرم بشار العجم إبريل شار الكرم أكرم بأرض الحرم مويد خير مسلم في مرحة شفيع في منطق أكرم بيوم صار عشنا واستنار لمن حول فخارا وغفلة من منزلي بمرحتي شبيه بمن بدين أكرم بشار نيسان مولد خير إنسان قدوة آل إحسان وكامل المكمل طلعة ربي لمرأة شبيه من بديعي قد تم دلالي في عدة ليالي بزينة المال كجور المفصلين يا ربيعي بمن عادي شبيه منتقي البديع تهنئة الربيع بمدحتي الشفيع بالمنطق البديع أبغي بها مؤمل بمدحتي الشفيع بالمنطق البديع أبغي بها الجمع به يوما ونيل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه الأمل بمرحتي شفيع بمن تستغل بديعي أبغي بها والختم لي بالحسنى والجمال للحسنى لدى المقر الأسنى مع الرفيق الأفضل ربيعي بما حكي شفيع بمنطق بديع وكن لنا وليا وناصرا حفيا لا نغتشي غويا بجاي عبدك العلي بمرعتي شفيع بمنطق البديع صلى الله وسلم إلى علي أفضل صلاة ما دام كون الإله من أبد لأزلي ترى ربي من رحمتي شفيع وآله وصحبه وزوجي وحزبي وكل آل حبي مع السلام الأكمل ربي بمحدي شفيع بجايب يا إله اغفر لناظميها واسمح لقاريها والذي حضر وعمهم بخفي لطفي وقتهم وابدر ما أفاد الكثير أجب دعاهم وأجب بالذي طلبوه بجاه أحمد ما صاب الخير اللهم صل على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 سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الداعين ومن تبع بإحسانهم إلى يوم الدين ورضي الله عن قطب المكتوم مولانا أبي العباس سيدي أحمد التجاني وعن سائر خلفائه وعلى رأسهم شيخ الإسلام وسعادة الأنام مولانا الشيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته آمين mbokki lislaam mbokki Cheikh Ibrahim mbokki jullit ñi fu ngeen mën di nekk ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen indi nuyoo bu jógee ci xalifa Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niass muy xalifa Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala anhu moom ak mbokk mbo mbooleem ay mbokkam ak mbooleem ay waa Medina ñëw nañ tey pour àndoo ak suñ doom Cheikh Ibrahim Mouhamed Nouruddin ak Cheikh Ibrahim Mouhamed Nazir ñoom ñaar ñuy ñaari tur waaye ñuy benn jëmm di benn bokk ndey ak baay ak mboolem seen rakk yi ñëw nañ tey pour àndoo ak ñoom ñu ñëw di nuyu waa dëkk bi nga xam ne mooy Kaarang di nuyu di jaaral nuyoo bi ci ñoom di ko jotal mboolem suufi Gambia ak mboolem jullit ñi fu ñu mën nekk. ñëw nañ beneen yoon ni nga xamee noonu lañ fi ñëwee daaw muy ñaan loo xam ne ñaan gu nangu la di ñu wax alhamdulilahi rabbil alamin waxtu wi daaw toog nañ fi ñaan yàlla nañ fekkee bis bi waaye ñi ngi ñaanaat ñaan googu di ñaan yàlla nañ ko fekkee ay ay bis bis ay ja jamono yu uute ay at yu bëree bëree bëri te at mu nekk ñu bokk ñu gën a nekk ca kanam ak at mu nekk ñu ànd ak xéwal yàlla boo xam ne moom mi nga xam ne moo wax ne soo ko gërëmee mu dollu la tant bi dara waralu ko lu may sant yàlla sant yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xam ne yàlla daf ko wax ne bind naa la ngir suma bopp waaye ñi jees ñëpp yow yaa tax ma bind leen kon nag suñ ñëwee tey ci tant bi yonent yàlla Muhammad sallallahu ngeen oñu ci tur ñu uy si leen ci ñi ngi sant yàlla waaye ñi ngeen ndokkeel ñi ngi ñaan na ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne suñ ko santee mu dolli leen ndax nit ki su fekkee nekku di dolleeku rek mu ngi wàññeeku waaye taxawaay mënta am kon nag yàlla na yàlla def deel dolleeku ak xéewal ci kenn ku nekk ci yéen ak ku nekk ak ñem fa teewal ak ku nekk fa mu jógee ba nga xam ne su delloo xéewal googu dafay law dafay béel ci mboolem koo xam ne tasee naa ak moom ñi ngi beneen yoon ñi ngeen leen ndokkeel di nuyoo ci tu tur suñ doom yi tedd yi nga xam ne mooy cheikh waa kër cheikh Mouhamad Nazir Ibrahim Niass ak cheikh Mouhamad Nouruddin Ibrahim Niass ak seen njaboot gi yëpp suñ ko waxee wax nañ mboolem njabootu cheikh Ibrahim waaye wax nañ mboolem koo xam ne da nga bokk ci faydatu cheikh Ibrahim ñun ñëpp ñu jóg ñu lekkale suñ suñ suñ suñ àndoo boobu ak suñ nuyoo boobu. di ko jox mbooleem ku fi teew ak ku bëggoon a teew te mënoo teew sax di leen gërëm di leen indi nuyoo bu jógee ci xalifa ba ak ngërëmaaneem ak ñaanam wax na ne tànk yi gërëm na ko nii moo doon tànki bàyyee ak maam ya kon su fekkee ne ñii ñëw nañu aw ci tànk bi bërki dem moo njaay ñu nekk ca ca Gambia ca Neaman Nazir te booba ba léegi samedi bu jot am na munaasaba bu ci tegee boo xam ne loolu su amee dara lu muy tegtale dañoo bëgg euh, teewal gi roga taataan waa képp kuy jullit daal di daal yëriñu ci ndax su fekkee ne suñ koy waxee fii waxuma la ñi teew ak ñi uyu ak koo xam ne def nga loxoom ci jë bisab tey bii pour mu taaru mel nii waaye ku toog këram di rajo rajo bi di ko dégg di dégg di dégg kàddu yi te dégluwu ko sax kooku dina amaana ci xew loolu su fekkee ne sangi woy njëkk woy mujj yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla wax ci alquran ne ko wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin yónneewu ma ne lu may nga ñëw indi yërmande jëm ci mbooleem nit ñi bàyyi mu ne loolu ku tudd yàlla rek muccoo ci mbindeef képp ku tudd yàlla rek yaa ngi dugg nga ci loolu kon yonent bi yërmandeem emalewu ko ci jullit ñi rek emalewu ko ci ñu ko topp rek daf ko rawale ci nit ñeeg ginne yeeg malaaka yeeg yentant yi képp koo xam ne yéen yaa ngi ci àddina bii rek kook xam ne mbinday fi yàlla nga rek am nga kado bu jógee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa soo ko yëgee ak soo ko yëgut kon nag alhamdulilah ñun ñi nga xam ne bokk nañ ci kuréel bi nga xam ne dañ koo yéeg ba pare di ko sant te yàlla moo wax ne soo santee ma dolli la kon nag ñu ngi leen di ndokkeel di leen wax ne genni golo gudd na waaye loo ci laal borom yëg ko njabootu Cheikh Mouhamad Nazir gii ku leen jàppale amul sikk ne yaa ngi jàppale Mawlana Cheikh Ibrahim ku jàppale Mawlana Cheikh Ibrahim yaa ngi li yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom jottali la ca jot su fekkee ne yonent bi moo wax ci rajo kàddu yi nga xam ne ñoo waxoon damay wax Mawlana Cheikh Ibrahim kenn ci góor ñooñu la rijaalun sadaqu ma ahadallahu alayhim fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdilan looloo tax àndoo ci yàlla du jeex ci àddina du jeex ci àllaaxira ñoo xam ne dañ fee nekk seen nekk bi faaw la fi nekk yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ko yàlla yónnee niroowut ak ni mu daan yónnee yonent yi ko jiitoon ndax yonent yooya dañ leen askan ci yàlla naam ndax yonent yàlla lañ waaye dëgg dëgg dëgg dëgg yonent yonent yàlla Muhammad lañ sallallahu alayhi wasallam moom ay ndawam la ñoon rek mu xëy moo leen doon ebal ci jamono yu fasantikoo ci xel yu fasantikoo ba nga xam ne xet doomu aadama àgg na ca fat toon ci xel ak mat mu door a ñëw moom moom moom ndey mbili ji su ñëwee nag keneen dootu ñëw message am bi mu indi muy alquran karim moo tënk mbooleem téere yi nga xam ne jiitu woon na dañ ko daan indi partout di ko di partout rek kenn ku ne indi ci la nga àttan kenn ku ne ñu yónni la ci sa jamono wala ñu yoon la ci sa xeet wala ñu yónni la ci sa dëkk soo jeexee mu jeex moo tax mbooleem yonent yi nga xam ne jiitoon nañ ñoom seen lim mi ngi alfaka qadimun téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeent mooy limi yonent yi waaye ñi ci indi téere jógee ci asamaan téeméer lañ ak ñeent téeméer bi euh, siisa bi nga xam ne mooy caati aadama mi nga xam ne mooy mooy mooy bàyyi bàyyi mbindeef yépp kooku indi na juróom fukki téere waaye yonent yàlla Idrissa indi na fanweeri téere yonent yàlla Moussa indi na fukki téere yonent yàlla Ibrahima indi na fukki téere ak tawreet ak linjiil ak zabur ak furqaan soo ko dajee yëpp muy téeméer ak ñeent alquran nag mooy ñëw tënk loolu yëpp benn bu nekk la cay seggiti seggit ma la ci am solo la xëy taxoon a jóg nit nga xam ne xale foofu la jëmoon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi ko nag su ko indee li muy tegtale mooy moo mujj. mu mujj ñëw ci yonent yi beneen yonent dootu ñëw ndax su njëkkoon ñëw dina am ñeneen ñëw te moom li muy indi dara tege dara mënu cee tege waaye nag ndeke njëkk ndax moom matière première boo xam ne lépp lu yàlla bind waxuma doomu aadama rek waxuma suuf si waxuma asamaan si waaye lépp lu yàlla bind ñu ko jëlee ci leer googu nga xam ne mu nga faqee ko ca leer ak yàlla ga mu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam juróom benn fukki at ak ñett yi nga xam ne nekk na ko ci kaw suuf mu doon sharia alquran juy dox rek lu mu wax alquran la lu mu santaane alquran la lu mu tere alquran la lu ñu def ci kanamam mu noppi ci sax al alquran la sharia la kooku moom moo doon moo doon jëmmi sharia ndax jamono jooja jàng xewutoon comme ni jàng xewee léegi te ñi nga xam ne ñoo daan bind ci jamono yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mën nañ leen lim ci loxo ñu néew la ñoon ñoo xam ñuy bind ci boppam. moo jiite yëf yi moom mi nga xam ne moo jiite yëf yi li gën a doon tumurank ci ci ci ci mojjisaatam yi mooy téere bii nga xam ne indi na ko lottal mboolem doomu aadama ne su fekkee ne weddi ngeen alxuraan yi indi leen alxuraan yu mel ni moom ne du ngeen ko mën waaye indi leen fukki saar rek yu mel ni alxuraan mu ne loolu du ngeen ko def waaye indi leen ñetti aaya ñetti saar rek ci alxuraan saar wi gën a gàtt ci alxuraan mooy inna ataynaaka al kawsar ak tabbat yadaa abi bu nekk ñetti saar la bàyyi mu ne nekk kon ñetti saar ñett ñetti aay yu nekk ci alquran rek kéemtaan la boo xam ne waa yàlla wax ne nit ñi qul la in ijtamaat al insu wal jinnu ala an yatu bi misli hada al quran laa yatuuna bi mislihi walaw kaana baaduhum li baadin zahiran may naa leen sax du niroowut ak ni ñuy def ci examen yi nga xam ne dañuy sorelante nit ñi di leen di leen siwaye ngeen jëflante yéen nit ak jinne ngeen dajee yéen ñëpp mënu leen ko def Euh, um, mbëru di ko wax ne may ma ma oo suma suma njabarkat yi da xam ne li ñoo ñoo la dàq njabar ñu daje leen ko jàpp benn bis boo xam ne ñoom ñëpp a daje mu ne leen sànni wala ma sànni ñu ne ko ñoom ñu njëkk sànni bañ sànnee ba pare mu daal di teg etam rek etam soppeeku ñàngoot lekk yëpp ba pare mu jaar ko bant mu téye ñoom ñëpp ñu daal di dëpp su jootal Moussa firaaw na ne leen lu tax ngeen di ko soñal te te joxaguma leen digal ñu ko kii kat dañoo gis ci moom loo xam ne niroowut ak li kii kii fa muy jëlee fu kenn du jëlee la loolu moo taxoon ed woow doon tumuraanke yonent yàlla isaa yàlla dafa fekkoon jamono joo xam ne jamonoy feebar rek moo fa xew nit ñi booba docteur rek mooy seen problème mu daal di ñëw indi kéemtaan yoo xam ne ku dee sax su la ne jógal ci kattanal yàlla nga jóg ku feebar mu raay la nga wér ku ku ku gumba mu mu raay sa kanam nga xool ñu xam ne kii fa muy jëlee duur kii ñoom ñëpp bañ indee lañ indi yëpp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ñëw nag ci milieu boo xam ne fasaa ak balaaxa rek mu doon seen tiitar ñoom ñëpp ñuy kii amoon na lu mel ni comme jeux olympiques wala coupe coupe de monde xam ne àddina yëpp ay daje ñu tànn ñi nga xam ne ñoom ñoo qualifié yëpp ñu daal taaj leen fa ñuy wax kenn ñu seet ki ci gën a jël pee ak ki topp ak ki topp daal di bind ko ak mbindam urus wékk ko ca Kaaba ga ba déwén ñu ñi ñoo gañe kii mooy mooy nekk yi ñuy def nii rek yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoo juddu ci seen biir di koo xam ne ba muy juddu ndeyam baayam deen boobu am na ñaari weer ci biir ndeyam kooku bàyyi defalu ko dara mu daal di toog xalimatu Saadiya yóbbu ko ba mu amee ñaari at ak ñaari weer mu delloosi ko yaayam ne ko daal gune gii dañ ñoo gis ci moom ay ay xar baax yoo xam ne dama foog ne jinne koy mu ne ko loolu nga ragal ma mu ne ko kon tegal fii su ma doom ji seytaanee du ko toroxal mu ne mu daal di teg ko ñeenti at ba yaayam amee ñeenti at mu dee kon yaay itam defalu ko dara Abdul Mutalib mi nga xamee mooy maamam mooy jur baayam moom mu doon sangi Quraysh moom lañ naa wax Shaybatul Hamd moom itam mu amee ko ba mu amee juróom at mu daal di dee mu dégg ko Abu Talib mi nga xam ne moo mooy bàyyi Seydina Ali ibn Abi Talib mu daal di yar kooku nag moo ko yar ba yàlla yónni ko moo ko moo ko. moo ko moo ko moo ko daan aar yaaram yëpp dajee nañ sax ne ko ñu jox la gune goo xam ne dañoo bañ nga dee nga dee ñu di ko rey ñu ne fi mel ni dañu laa doon gannaawoon waaye dañ lay indil kii nii jox jox ko benn indil ko benn waxambaane ne ko de xale bi moo gën a rafet ci màkk dañoo bëgg nga jël ko téye ko su ko nga jox ñu Muhammad mi ñu rey ko ndax nekkeew fi li may di doodal suñu yàlla yi mu ne leen ni yéen daal da ngeen fooy man aw ma bopp ma jël si ngeen jox ma seen doom ma deen ko yaral man ma jox leen suma doom ngeen rey du ma ko def mukk laa dina pare nag fekk nag commencement bi bi waxee ne su bëggee su bëggee alal ñu dajale suñu alal yëpp jox ko ba mu gën ñu ba mu gën fee su fekkee ne dafa bëgg jigéen ñu seetal ko jigéen ñi gën a rafet ci mag yëpp ñu jox ko ko su fekkee dafa bëgg càng ñu def ko muy suñ buur bàyyi ji ne ko ah Mohamed ñii de dafa mel ni bëgg nañoo juboo su fekkee ne lii yëpp préparé nañ pour jox ko ngir juboo yonent bi daal di jooy foog ne baayam daf koy jàmbu mu ne ko walla ma wax leen lenn benn baat boo xamee su ngeen ko waxee mbooleem ku dugg ci lislaam dana ñëw topp seen gannaaw su fekkee ne ku dugg ci lislaam dana leen jox ga dana leen muy muy muy ak ajab Abu Jahl ko gaawal wax ñu booy baat boobu ñu tegale ci fukki baat mu ne ko ñu wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah mu ne ko loolu nag moom mënuñ ko wax muhammad foo ñu jëmee mu ne ko ñun ñu ngi amee ñetti téeméeri yàlla ak juróom-benn fukk ak ñett après suñ alal it suñ aajo yi fajuwut nga bëgg ñu bàyyi ko dem ci benn benn yàlla bàyyi mu ne wax dëgg yàlla kay ku am lu ëpp ñetti téeméeri yàlla sa aajo yi fajuwut te nga ko bàyyi dem ci benn mu ne mu ne ko mu ne leen ñu ne ko loolu duñ ko def mu ne kon nag suñ tegoon weer wi ci suma ndeyjoor bi teg jant bi ci jant bi ci suma ndeyjoor teg weer wi ci suma càmmooy pour ma bàyyi du ma ko bàyyi mukk la baayam ne ko la liñ la digal wallaahi du ma du ma leen duma ma du bàyyi mukk fekk maa ngi dund ci la waxee bayte boobu ne ko wallahi lan yasilu ilayka bi jamcihim xatta uwassada fi turaabi dafinu mu ne wa nasuruhu xatta nastara xawlahu nuzulan an naa wan xalaayil duñ la ko jox mukk lu may ñu dee ngegg na suñu yebar ak suñ ki ñu door la bàyyi kooku li muy bëgg bëgg bëgg yonent bi li mu koy dimbale dimbale su duggoon ci lislaam ñu danañ wax ne ndimbal la ci yonent bi waaye nag taxut mu dugg ci lislaam ba ci mujjam bi muy dee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na tiim ko ne ko defal nga ma lu nekk te man mënuma laa defal dara lu ma ci cadre lislaam dama bëgg nga wax ñaari baat yi ma dox sa diggante al mu safara mu dem bay bëgg a wax mu yàgg mu ah dama bañ sa mbokk yi di wax ne sa baay bi mu demee bay waaj a dee dafa tiit ba soppi diineem moom bëgg yonent bi sax moo tax duggut ci lislaam ba mu génnee nag am na ñu ko dab sax ne ko wax na ko mu ne moom seedewu ko moom moom yonent bi sax ku yonent bi seedewu nag kenn mënu laa seede kon nag kooku kenn defalu ko dara mu nag indi nag alxuraan yoo xam ne daf ne leen def leen ko rek te du ngeen ko def mukk àddina bàyyi mu li gën nag xadi xuraysh mu leen du ngeen ko def defu leen ko te du ngeen ko def mukk la àddina moo tax ba léegi ay salmaan rushdi ñii ayaatu seytaane ak ñiy caricature caricature yonent bi def nañ façon ngi def yépp dara mënu ko jëfe mënuñoo fexe ba fenloo alquran bi yi ba mu génnee ak léegi am na téeméeri seekal téemé téeméeri téeméeri at ak ñeenti téeméer ak lu topp booba ba léegi ñoom seen itte yëpp mooy fenloo yonent mënuñoo fexe ba fenloo ko fexe nañ seet nañ fan la ñuy xeexee lislaam amuñ fi ñu koy xeexee léegi nag fi mu ne li dëpp mooy jël juriñ ñoom seen bopp fen xale leen Mawlana Cheikh Ibrahim daana wax ne ragaluma ci lislaam noonu lislaam yi ndax luñ ko dara waaye doomi lislaam yi ñoom laa ragal ñi ne ci biir ba pare nag di yàq kon nag suñu yàlla boolee ci ñi nga xamee ne ñoo nekk ci biir ba pare di defar ma ne maa leen dokkeel ci loolu di leen ñaanal yàlla am na ay jataay yoo xam ne ku texee di mënu cee toog su doon dox di seetaan sax su doon ñëw di jaay si sax amul dara lu mën a tax mu perte bàyyi di ko misaal ne su fekkee ne jaaykati parfum ak lakkati këriñ soo teg soo toogee ci mbaar ma fa ñuy lakkee këriñ saxat si dina la gënd te mën naa am sax fe mu ñermente li lakk sa yére wala mu lakk sa sax sa jëm kenn mënu ci dara mu ne soo toogee jaaykati parfum nag mën koo soxoree ba te odeur bi xeeñ la te mën naa am sax bala nga faa jógee bëgg laa jaay tax mu ne la fu mu ne la mu ne la am mosal biyee gën a gën a neex su fekkee ne ñaar ñooñu toog ak ñoom mën il faut nga jëriñu ci wala nga perte ji kon nag nit yàlla itam toog ak ñoom ñooñ la yonent bi di wax ne qawmun laa yushqa bihim jalisun am na aw nit woo xam ne ku texee di mënta toog ak ñoom moo tax place yu mel nii malaaka yi wàcc di indi xéewal di indi iw di indi seede yi nga xam ne moom la yàlla indi ci moom moom la may ci mbindeefam yi su ngoonee ba jant bi so ba jant bi so dafa am ñu fi nekk ñu fi nekkoon daal di dem ñi nga xam ne ñooy gon ñooy fanaan si daal di ñëw xëy si su ko defee nag ñoom wàcc boobu ak éeg boobu ñuy éeg su ñëwee ba tiim suuf si ni nga xamee ne tànt yi nga xamee ci la ñuy tudd yàlla mbooloo yi nga xamee dañuy dajee di di tudd yàlla di di di màggal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo leen di leeral ba ñu xam ne wàccukaay yaa ngi nii ni nga xamee ne soo demee ci aéroport bu nekk am na lampe boo xamee mooy nit ci kaw di wan avion yi nee leen wàccukaay baa ngi nii ndax bu ñu réeree dañ mu mu gide leen waaye jataay yu mel ni itam ñi indi yërmaande ci àdduna bi ñii ñoo leen di leetal su ko defee suñ demee yàlla laaj leen te lim leen di laaj moo leen ko gën a xam ne leen lu ngeen gis ñu ne ko ñun suñ borom gis nañu ay mbooloo yoo xam ne dañoo dagg dañoo dajee bàyyi seen yëpp gàddaay seen i nelaw dépensé seen alal te dara waralu ko lu may tudd yàlla ak màggal yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñooñu jéggal naa leen am ca malaaka mu koy wax ne ko diw ak diw ak ci woon ñoom loolu taxu leen a jóg mu ne ko bàyyi li ngay wax am na ñoo xam ne ku toog ak ñoom taxee te toog ak ñoom amul pertement kon nag ñi ngi leen ndokkeel ci jotaay bi leen indil comme li ma ko waxee sànq nuyoo bu jógee ci xalifa Cheikh Ahmed Tidiane mu ne xale yi nga xam ne dañoo judd ci leer tànk yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon dox Mawlana Cheikh Ibrahim biral ñu ne topp na ci yonent bi ba nga xam ne fu yonent bi tegg tànkam mu teg ci kawam amul benn sikk ndax loolu mooy tax message bi nga xamee dafay ñëw ba faw du fi jógee mukk la àddina te yonentu juróom benn fukki at ak ñett la am dun génn àddina kon ne foofu la am kon ñi ñëw gannaawam su leen yàlla toroxalee wala mu mu yóbbu leen safara kon dafa mel ni tooñ nañ leen ndax ñoom yónniwuñ ci ñoom kenn waaye nag yonent bi suñu yàlla indi indiloon malaaka itam dañ naan ko ñemewuñ malaaka wala li muy santaane ñun mënuñ ko suñu indiloon jinne dañ naan ko ñemewuñ jinne moo tax dafay ut lu mel ni nit ci yërmandeem def ko ci suñ biir muy lekk di naan lu mu def muy sharia lu mu santaane muy sharia luñ nopp ci kanamam sax muy sharia kooku mooy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dund dana dee su ko ne mu ngi fi deewu danañ xam ne kon du waaye nag dana dee deelu wala dana feeñ dana nëbbu feeñ ci yeneen jëm yeneen jëm xaw ma ñaata góor yàlla ci la ci la feeñ xaw ma ñaata mission bi yan dëkk la dem ak yooyu waaye amul sikk ne ñun pertuñ ci ndax kooku nga xam ne mooy wax ne ida saara xayru naasi sirtu waraahu wa in xalla yowman fal masiru baidun mu ne gën ci mbindee fu mu teggi tànkam rek ma teg suma tànk topp ci kawam am na benn waaye bu wax ne ma loolu ndax yonent bi dafa dafa bàyyi dafa fekkee yonent bi bàyyi di yonent bi di dox ci kawam fu mu tekki tànk mu toog ca mu ne ko déedéet man gisee ma ko noonu dafa mel ni nit ki ak takk ndeeram wax nañ ca way ci commencement bi bi xasida bi ñu ne nuuruhu awalu wujudu wujudan wa huwa aslul usuli wal anjaali yàlla fi nekkoon ba fi dara nekkut te su fi jógee le su fi jógee su fi su lépp jógee moom moo fi des loolu nag ba mu bëggee ay mindaakoon foofu amut beneen amut amut leneen luy jël yàlla rek fi la jëmam jëmam ji sell mu jël ca leer ak leer ak jëmmam joojo def ci mooy yonent yàlla Muhammad moo tax tuddee nañ ko nu nekk tuddee nañ ko ma la xayula malakum kirubiya xel mu njëkk mi xelam ñaareel mi xelam ñetteel bi waaye yooyu yëpp ñu bëgg a wax dañoo bëgg a wax ne tëjalli bu njëkk ba mooy feeñ ak yàlla bi dara nekk fi bi mu def tëjalli ñaareel bi nag mooy mu jël ci boppam def ko muy nit mu def koy ebal ko ci mu ñun ndax ñu mën a xam li yàlla bëgg ñu ak ni ñu koy toppee mënuñoo tàndale ni yàlla bëgg ñu jaamoo ko su fekkoon ne yónniwut benn yónant kon dañuy foog ne comme li nit ñi bëgg la bëgg jabar ak doom ak kër ak euh, su dindee bàyyi fi doomam ndax loolu lañ xam waaye nag moom moo ñuy won ni mu bëgg ñu jaamoo ko du ni ñu neex ñun moo tax mu indi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee wane ko ba pare daal di làqu feeñaat waaye ba léegi yonentu baa fi yonentu mu fet dafay feeñ ci ay góor waaye amuñ sikk ne Mawlana Cheikh ma Tidiane bi nga xam ne moom moo indi tariqa bi feeñuwaay ca feeñuwaayu yonent yooyu la bokk amuñ sikk ne na Cheikh Ibrahim moom itam feeñu na ci feeñukaay yi yonent yooyu nga xam ne lim fi indi woon moom la ñuy ñëw di sara beneen téere dootu ñëw beneen yonent dootu ñëw waaye dafay am ñoo xam ne ñooy ay xulafaam rek di di topp yoonam di ko wan nit ñi di ko leeral nit ñi ba nga xam ne kenn ku nekk jotal na comme keroog ci xajatul wadaa keroog ba mu taxawee ne ban bis du bis àjjuma ba ñëpp foog ne dafay changé bis bi ñu ko ah mu ne ci ban dëkk du màkka ñu ne déedéet mu ne weer du aj ñu ne ko waaw mu ne bis ki tey nit jot mu ne mu ne mu ne bu jullit dox di dal ci kaw jullitam moromam bu ngeen fi doxee di rey di kii yooyu moo fi jógee ne yàlla ne ne jotal naa ñu ne ko waaw jotal nga mu ne joxoñ ci kaw ne yow yàlla seedeel ñu ne jotal naa keroog al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtum alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina keroog la laay jooju wàcc ba mu wàccee nit ñi dañoo kontaan foo ne yëf yi jeex na mission bi jeex na Aboubacar moom di jooy ñu góor gi moo bëri man-man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni ko mu indi message am benn benn terminé lu ci ne nekk te yow moom moo leen gën a dégg xam ne ne li ko tax li ko tax a feeñ mooy ñëw rek pour leeral nit ñi su ko su ko jotalee la pare daf fii daal di jógee waaye jóge boo xam ne zaahir la waaye jógee baatin mi du fi jógee mukk la àddina góor yàlla am léegi bi ñuy liggéeyee bala nga bala ngaa dellu ci alamu naasut booy taaye asalaamu aleyka ayyuhan nabi wa rahmatullahi taala wa barakaatu bala ngaa sëlmal da nga wax loolu su fekkee ne jullit bu nekk fu mu mën di nekk ci àddina bi fa mu toog yonent ba ngi ci kanam ba mu di ko nuyu nuyu boo xam ne yaa ngi ko nuyu ku jàkk koo jàkkaarloo la ñu xam ne kon yonent mi ngi fu nekk te mu ngi fii ci tànt bi kon nag ñu ngi leen ndokkeel ci loolu di leen ñaanal yàlla di ñaanal yàlla euh, meññeeti Cheikh Ibrahim ñii nga xam ne ñoo ñëw fii di delloo dara ci njukkal ci teraanga boo xam ne Gambie defaloon na ko Sénégal defaloon na ko El Hadj Abdoulaye waa Gambie defaloon nañ ko El Hadj Abdoulaye bañ ko xatalee. ca ca ca ca Sénégal xool na àddina bi yëpp demul Mauritanie demul Mali demul feneen waaye Gambie ak yi la ñëw ñëw taxu si fi ba yàlla feeñal ay yëfam loolu la yonent bi defoon sallallahu alayhi wa commencement message am juróom-ñaar yi ñi topp ci moom gannaaw gi dem nañ ba mat juróom ba mat téeméer waaye ñu di leen sonal di leen sonal suñu daan julli sax kenn ku ne da ngay nëbb ba ci kanam yonent bi sax su julli jotee def naa ne ku ne làqu fa muy làqu julli te ñëwaat bi nga demee bay bay yëf yi métti ñu ne ko ñun waxtu ku bokk ci yow rek ñuy xotti ay malaanam di ko toroxal di ko mu ne da ngeen foog ne da ngeen wax gëm naa yàlla te yàlla du leen examen il faut mu examen leen waaye nag am na dëkk boo xam ne buur a nga fa boo xam ne du nangu ñu tooñ ci suufam te ku fa dem da nga mucc dem leen foofu ba yàlla wane lislaam ba yàlla may leen may leen doole moo tax bi Afrique di dimbale lislaam booba màkk gim mu juddoo dimbalewuñ ko Medina gi nga xam ne ci la dee dimbalewuñ ko ñu tumuranke julli ñu tumuranke mooy leen dem leen ca Xabasa su ngeen demee foofa loolu Afrique kon ñun lislaam duuñ ci gan duuñ ci ay ñoo xam ne dañuy ñëw di xaaraan ñun ñoo ko moom parce que bañ ci bañ bañ koy jàppale dañuy jàppale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay mbokkam sax jottalewuñ ko ja ja dimbalewuñ ko kon nag ñun dañoo war a takkaayuwaat seet su gàmm yi liñ ciy def bàyyi mun ne jar nay bëri ndax dañuy fàttaliku jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di fàttaliku ay jaar-jaaram mën nga cee jaaree bëgg ko soo ko bëggee topp ko soo ko toppee sa àddina éwén sa àllaaxira éwén ni ñu koy waxtaanee jikko yi ñuy waxtaanee nit mën na fee nelaw sax daal yi wan la nga gis yonent bi sallallahu alayhi mu ne ku ko gis taxee nga ndax seytaane mënta feeñ ci fotoom ku ko gis xal nga koo gis bàyyi mu ne xal nga koo gis bala ngaa dee te kon mucc nga wala da ko gis yowmal xiyaamate kon nga gën mucc sax mucc itam loolu moo tax mu ne bis yi jar nay bëri ndax ñu su ngeen niñ ko occasion rek suñ dajee woon defuñ dara lu may def tànt bi rafetal ko ba ba pare gàddaay seen nelaw yi defuñ ko dara lu may màggal yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak bëgg ko ma ne ku fi toog sowe nga ku fi toog sowe nga su fekkee politiciens yi dox di def ay mbaar ak ay tribune ak ay pëjëm ñoom ñooy def nii ku bëgg ñu seen ñaari junne yeeg seen seen yu dërëm yu tuuti yooyu ñu joxe tax ñu ñu bëri dem di dem di ŋaayoo di xëccoo di kii yooyu kon nag ki nga xam ne mooy président yi président yi ki nga xam ne yàlla bàyyi mu ne yàlla yonent bi dafa niroog yàlla dañ koo niroo niroo niroo ba nga xam ne seen différence mooy kii maye rek kii lañ may yàlla kerek ba maye yonent bi keroog la gëj a maye moo tax mu ne suma moomeel gii ku ci bëgg na ut ngërëmaaneel yonent bi su yërëman yonent bi gërëmee gërëm moo waral daje yëpp ngeen ndokkeel di leen ñaanal yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulah feyal ñu bàyyi lim ñu defal amuñ peyam dañ nañ ci réer jóg nañ ci mar nañ leen njukkal maami asan lay lay la laahu lay lay la laa lay lay la laa illa laahu lay lay la laa lay lay la laa lay lay la laa lay lay la laa lay lay la laa illa laahu laa ilaaha illa laa laa ilaaha illa laa ilaaha illa laa laa ilaaha